asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy déglu ci réew mi ak bitim réew fu ñu mën di nekk ñu teewlu te xam ne information boobu ngeen di déglu ngeen di dégg muy tasaaroo ci réseaux sociaux yi wérut benn site bu ñuy wax set moo ko dugal te dara wéru ci ñu déglu seen jiili ci boppam waaw sëñ bi Mbàkke waaw Cheikh mi Cheikh mi Guèye. waaw dama bëggoon nga nga wax rek nga wax ba ñëpp xam ne dara jotu la wax ji waaw baax na yàgg yàgg fi rek téwéer. amiin daa ma a liggéeyal sa baay te lu bari. waaw yàlla baax na yàlla baax na fi. baax na Mbacke ne ne baax na baax na jërëjëf. maa ngi sant baax na waaw waaw